ثلث التين شهر التين بني مسيحة كذا مثلا أو مرني في ثمان آيات بلغة آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وقم كنت تدبر عمل كذا يقول من أول جار يارين كذا يقول كذا جار آخر والتين كذا لبن mooy bon bu ñu lekk wa saytuun dañu ne wa saytuun mooy saytuun si ñu lekk wala wattiin nga jële wattiin aw doj la wa saytuuni nga jële ma saytuun doj la ca bayti mu basit ca waxee saabam dumbu wa tuuri siniina nga jële naa tuuri siniina naa tuuri siniina jub tudd tegtal na ne lëm namm ci ñaari baat yi ko jëkkoon doj la doj wa tudd tiin ak doj wa tudd saytuun ñëpp ca saam lañ nekkoon saytuun nag ñooy fay ibnu Mariama fële moom dund ba damat ba ko yàlla yónni dana si nii na mooy daj waa yàlla doon waxee yonent yàlla Muusa waxaadal bala di jëm naa ci biir dëkk lamee ni ba dëkk ñu noonu kooku it mooy Makka yàlla jëñ na ci ñetti barab jëñ na ci saytoon daj wa nga xam ne Isa ibnu Maryama xalifa xalifa yàlla ci jamonoom wala dëkkoon gis na ci tuuru Siina nga xam ne Muusa ibnu Imraan wala doon deyaaleeg boromam géej na ci Makka mu nga xam ne yonent yàlla Muhammad wala ba ñëw ko ñaara ngi ci lim jiim di wax ne yàlla ñëw na jóge tuuru Sinaa ñëw Zeytuun gannaaw ba mu jublu Makka réeral na ñun lim jiim ñu def Isaa muy yàlla fekk lim ci jubloo ku ci ne mooy xalifa yàlla ci jamonoom rek waaje woon ci tuuru Sinaa di yàlla yàlla boobu mooy xalifa yàlla ci jamonoom waaje woon ci Zeytuun nee na na Mariama boobu mooy xalifa yàlla ci jamonoom waaja ca Makka mooy xalifa yàlla rek ci mboolemi jamono lu ma doon géej yëpp laqad xalaqnaa wallaahi bind nanu ninsaana nit fi ahsani taqwiimin ci gën jarafeti bind rek loolu yàlla doon géej yàlla bind doomu aadama te bind na ko te bind ko gën a rafet loolee ñu yàlla bind bind ak doomu aadama la ci gën a rafetal moom la ci gën a matal bàyyi na yëpp dañuy taxaw ñeneen ci tànk jiitu seen lépp lu ñu yàq seen njëriñ bu mag bii mu taxaw ñaari tànkam boppam féete kaw mii lekk la ko mu tere góor ñi ak sikkim tere jigéen ñi ak jubb bind leen bu dëgër bi mu leen bind bu rafet bi mu leen bind bu mat bi ba ñuy wax doomu aadama rek ay wax ci yàlla bind moo tax mbindeef muy wax soo rek tudd nga doomu aadama moo tax nit làmmiñam genn wàllam genn wàll di ci def mooy xolam di ci def yëpp yàpp ak dara rek la naka ko bàyyi muy amee moo te yàlla ngi bind doomu aadama ci lan ci meloom nit ki yàlla ngi ko bind ci tuddu Muhammadu bopp bi niim la mbëgg mi aadam dellu la nit bi mel niim la tànk yi deel la nit ku nekk rek Muhammadu mu taxawal moo tax su ñu sëriñ dem safara dañuy soppi seen dënn yi def leen ay golo ci ndax turam ñu génn ci bind Muhammadu yi ñu nekk waaye turu Muhammadu yi du dem safara yàllaa leen bind nag ci bind ba gën a rafet su ma rafet naa ko topp nu delloo ko ak solo saafiri na muy gën ca suufee yooyu suufee ñu rek yàllaa bind nit ki rafet islam ci meloom nit ki yàlla yooyu suufe yi de yàlla bind nit mu gën a rafet lépp lu rafet gannaaw ba mu delloo ko mu gën a ñaaw lépp lu ñaaw mooy ba muy waxam daane taaram jéggi na dayo dayo dayo jigéen ba muy jant taaram dafay jéggi dayo ndax booba yàlla ngay pare ñëpp la ku ci nekk mu rafetal ko bëgg ko moroomam gisee bëgg ko ba si ñoom kat kat loolu ngir loolu du dañ lu may boo xam ne jigéen am na ñoom fukki ngirtam daal di dog mbërëgam daal nga xam ne yàlla arit dina ngurti la foofu buur itam su demee ba màggat moom itam ay métit ak feebar ak màggat ñàkk kattan dem dikk ci moom nga xam ay feeti gouvernement yu beew yi jéem a arrêté ngirti léegi dañu bàyyi ko fi ko noonu ak dina ko ca wax moom jotee da nga màggatee ba gën a màggat nag moom lay wax ne mooy asfala saafiliin illal li ñeen la ñaaña amanu gëm nañu wa amilu dañ jëf saalihaati farataay naafile de doomu aadama buñ delloo gëm gën a suufe nag génn nañ ca ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf-jëf jiwu de falahum ñeen la ajrun yor xayru mamnuun buñ dog kon nag ak xoolal fàtte bi nag màggat bu tëddee kenn wax wéru yàlla bind na doomu aadama ci bind ba gën a mat gannaaw ba mu delloo ko mu gën a suufee way suufee yi lu mooy ñi gëm yàlla mooy yàlla bind na nit ki def na ci moom jikko yi malaaka mën naa xam yàlla di jaamu yàlla jaamu bu sell naka malaaka man def na ci moom jikko yi mën naa nekk saytaane yàqkat bu dul tëj ba mel saytaane mën naa nekk bàyyi ma di topp ba ne dara du soxlaa mu ne dama payam mën naa nekk itam gor bi fàdd dara du soxlaa mu may tuur deret su fekkee ni nit wëcc na boppam ak saytaane li nga xam ne pexe lu bon ak def lu bon rek mooy liggéeyam léegi seytaane la nekkatul mukk kon dellu na di asfala saafiliina te moo gën a bon seytaane su fekkee ni na bii dana rek de fàtte yàlla bàyyi topp yàlla dëkk ci mooy yàlla nekkatul mukk kon bàyyi ma de te moo gën bàyyi ma kooku ni dellu na asfala saafiliina su fekkee topp na melak sàdd ba nga xam ne tuuti dara rek ay liggéeyam nekk na gar te bon dellu na ba ci asfala saafiliin waaye itam su xeexeeg ba kanam bar laawal ko ci yooyu te am boromam di jaam boromam jaamu gu na malaaka yi kon mujj na di malaaka te kon moo gën ma yi de moo tax asfala saafiliin def nañ ci dina amoon waa amul saalihaati ne ak dina wax ci saa ñuy ñëw di ne waaye doomu xayrul bariyati ne doomu aadama mooy gën di mbindeef naka mu waxee ci doomu aadama ne mooy mooy kees di mbindeef ne su yàqoo ba dem ci asfala saafiliin kon day mooy kees di mbindeef waaye su baaxee itam ba gis ci malaaka la kon mooy gën di mbindeef mooy gën di kaanaan bi ñoom gën di wala baax ci gannaaw ci diine ci tey ah wala yàlla mën naa def loolu yëpp ana lu tax ngay weddi lépp péncam yàlla alay sa laaw déet yàlla bi akamul xakimina muy aji xatte way xatte ñi anaan i jaana wacci ba ca mujj na nga wax balee wana la wen tum incha allah jàng ba nekk ak bala saabi ni nag su fekk ci bind bi rek la dellu dana màggat te dama mënoon yëpp doon ko mën moo tax yonent bi ne nit ku màggatee yàlla dafay wax ne sama jaam bii mënatul dara dee leen ko bindal jëf ju rafet jëm doon jëf ba muy xale dégg ngeen xale yi jëf ju rafet ja ngay xale soo màggatee mën a sol ko loolu lañ lay fay soo ne xale laa nag dara waruma ba màggat ñëw mën a sol kañ ngay am gën ci dund mooy jamono ndaw barke dund mooy jamono ndaw soo jëkkee ba màggat nag ba mënatu la lan doon def ci sa ndaw yàlla na bindal leen ko gën ci lu mu daan def ba kooku moo tax de yonent na ne yenn wàll fay nga jënd di am yenn wàll fay ci taxaw lu muy ñett pour màggat ba am juróom benn yàlla taxaw lay am ni da ngaa tukki ba sonn itam soo nga bëri taxaw ngay am bu nga pay ko julli dana am yoolab taxaw de am naa xale bu nga pay bu julli rek genn wàll loolu kat dinaa bi daa ni ko wax waaye farat sakkal ko